général des mourides al muntaxa la tudd kenn waratu kenn waratu ko yàq <laughs> waaye moom du Lamine du yàq ñu ngi ziar euh, oustaz di leen masaw di leen euh, euh, di ànd ak yéen di naxarlu li nga xam ne moo fi xew ni nga ko waxee wal fajiri bi ma gisee keroog cheikh ni moom dafay renoncer à sa nationalité man maa njëkk a posté ci sama page ne ko Euh, ak ak dañuy jaay Walfadjri ma ne ko nag Walfadjri moom moo ko moom. bu hmm. la neexee nga renoncer sa nationalité. Hmm. te fooguma sax ne daañ ko nangu waaye Walfadjri moom duñ la bàyyi nga jaay ko. Hmm. ndax dañ dul xam ci yan loxo lay dem. waaye boobu ndeke am na ñoo xam ne ñoom waxuma la jaay gi sax waaye Walfadjri nekkati sax mi ngi leen mi ngi leen déranger gis nga oustaz euh, lii dafay wane ne yéen a ngi ci yoon. maa ngi dégg président Macky Sall di wax ne li leen ab Ablaye Wade doon teg dafay wane ne Sidi Lamine mu ngi woon ci yoon Sidi nag eh, ñun najaay la ci ñun bàyyi la ci ñun waaye royukaay la ci eh, ci ñun eh, lii mu bàyyi fii it defe naa ne ndono la goo xam ne patrimoine la pour sénégalais yëpp. Mm-hmm. li nga xam ne yi mu ngi ko doon wax nag 2011 2012. moom moo soppeeku waaye yéen soppeeku leen mm-hmm. moom moo soppeeku waaye Walfadjri Euh, soppeeku wuñ waaye xam nga euh, euh, maa ngi lay wax sànq ci sa bureau ne la gis nga istibdaat muy dictature pour mu am dafa am ay conditions yu koy yu koy jàppale yu koy taxawal mm-hmm, mm-hmm. alquran bu ñuy nettali ay xasas ay histoire boo jàppee ne histoire bu romb rek la lay nettali dégguloo ko ndax histoire démb la woon xëy na nga mën ci jàngee waaye alxuraan du nettali al histoire ni ko historien yi di di nettalee moo tax niroowul sax ak yeneen téere yi hmm. nit ñi jàngale moom ba lay wax histoire daf lay wax li nga soxla bu lay wax aadama ak iblis euh, bul jàpp ne aadama ak iblis démb la mu ngi lay wax ne yow yaay aadama iblis nga amal affaire vingt quatre heures sur vingt quatre bu lay nettali yi tamit yonentu sallallahu alayhi wa ak noonam yi nga xam ne ñoom la doon janool mi ngi lay wax ne yow yaay yonant bi yaay ndonoom hmm. waaye ay noonam démb ñooy say nooni tey rek hmm. xam nga oustaz histoire bi gën a répété wu ci alxuraan mooy histoire yonent yàlla Moussa ak Firawn te gis nga l'histoire dafay répété boppam hmm. ay at ci gannaaw gis nañu président Macky ñëw fii ci rajo bi ak ci télé bi di wax ne Eh, histoire Firawna war na jàngal ñëpp. Mhm. <laughs> histoire Firawna nag ñun nañ jàpp ne. ñu ngi ñuy déglu li ngay wax noonu li mu waxoon moom président Macky Sall ñu may la ko déglu ko doo ko continuer. dégg la bi tey. Sidi lii mooy wane ne si yoon wu jub nekk. parce que bu newaloon si yoon wu jub lii du ko si dal kon bu mu découragé benn yoon te xam ne bokk na si ñu taxawal démocratie Sénégal ñu ngi koy won suñu solidarité. di ko jàppale di leen jàppale yéen journaliste Walfadjri ak travailleur de Walfadjri. wallaahi du ñu découragé ak moom. xam nga loolu. Mm-hmm. Eh, moom mooy dëgg gis nga. yonent yàlla Moussa alayhi mm-hmm. yàlla daf ko booleeg buur buur bi tudd Firawun. Mm-hmm. Firawuna nag du tur mais titre la. Mm-hmm. képp ku mos a moom Égypte dañ lay woowee Firaaw Firawna mm-hmm. ku mos a moom Éthiopie ñu lay woowee Najashi mm-hmm. ku mos moom Faris ñu lay woowee Kisra ku mos a moom dégg nga Ruum ñu lay woowee Kaysar moom ngeen di wax César nga gis ne kon du tur waaye titre la pour la pour Firawna am cim réew nag mooy nga am buur boo xam ne dafay jëf-jëfi Firawna dafa foog ne moom moom lépp sam papa dafay wax ne lekk ñett la mhm. da ngay lekk ba suur jóg mbaa mu jeex nga jóg mhm. mbaa ñëpp jog nga jóg mhm. président Macky Sall nag dafay lekk ba ñëpp jóg mu ne suuruma muy lekk ba lekk gi jeex mu ne suuruma <laughs> ñu ne ko nag foog nga jóg parce que amatuñ loo lekk xam naa nag comme Macron am na pour moom palaa na dem jëli palaa boobu. Mhm. wala li ma dégg ñu ne dafa waroon dem Maroc. Mhm. mën naa am na ay palaa yu mu lekk foofu. Mhm. waaye fii lekkam jeex na fi. léegi nag li koy may nag mu mën a continuer. wax naa ne dictature juróomi yëf la soxla. bu njëkk bi mooy moom ci boppam. moom dictateur bi mu nekk koo xam ne nii dafa ñëw gëm ne moomoom nit ñi inna firawna ala fil ardi wa jaala ahlaha chian yastadifu taifatan minhum dégg nañ président Macky dem ci United Nations di wax bu fi jógee ki mu fiy bàyyi nan lay mel mm-hmm. mu mel ni moom moo war a fal moo war a folli mais le cœur dynastie moo ngoog dynastie Faysal wala dynastie Thialène mm-hmm. wax naa ne lii buñ ko bàyyee mu continuer di ngeen dem ba dootu leen amati nationalité sénégalaise mais nationalité Thialène ngeen di am mm-hmm. nationalité Thialène foo dëkk nga ne Thialène ca dëkk ba famille Sall. Mm-hmm. Sam Thialène mu ngoog loolu nag eh, duñ ko duñ ko duñ ko nangu ñun. Mm-hmm. ñaareel bi li koy dëgëral moom al malikul mustabit mooy buur boo xam ne dafa war a ne maamoom moom nguur gi dafa war a wax ne maa leen yilif maay def lu ma neex dafay am wazir mutamalliq mm-hmm. wazir munafiq mutamalliq maanaam dafay am ci wetam ñoo xam ne lu wax lu wax ñu ne gong bu ne am naa droit droit premier mandat ñu ne wax na dëgg mhm. constitution bi moo su xëyee ne bàyyi naa ñu ne kii le président le plus démocrate mhm. nee na dootul demati troisième def troisième mandat mhm. su ñëwaatee ne ah damaa bëgg dindi li nga xam ne yoon mayut ma ma dindi ko ñu ne yoon may na ko ko kay ma ajandi yëf yi li mënta aj dama ko bëgg a ajandi ñu ne waaw gis nga bu bu fekkee ne bàyyi nañ élection yi président bu fi ñëw du nekk président bu légitime te pourtant ñun 2019 premier ministre moo ñuy wax ne cinq candidats mooy am. Mm-hmm. cinq candidats am. élection yi balaa jeex mu ne ñu 58 pour cent la sama waa ji ñu génn ci 57 jëm 58 pour cent. Mm-hmm. ñu naan ko légitime moo te terewul mu nekk président. Mm-hmm. kon loolu njiit boo xam ne ni dafa am ay. Euh, wuzara ay dak yu ko wër te lu mu wax ñu ne noonu la dafay tax dictature am gën a dëgër mhm. loolu alxuraan a ko wax de mhm. dictature boobu Firawna bosam ni ci kan la wazir boobu nekkoon mooy Haamaan mhm. Haamaan la doon wax ibni li sarxan laalli ablugu lisbaab lisbaab as-samaawaati fa attaliu ila ilahi Muusa boobu lu mu bëgg rek Haamaan defal ko ko bu ko defee Haamaan daal di commandé soldats yi inna firawna wa haamaana wa junuudahuma kaanu xaatu in ñun ñii ñu ngi nii gazé nañu tey ba ñuy bëgg a dee ci mbedd mi mm-hmm. <laughs> yaa ngi dégg dégg naa nekkoon fii ci buntu Walfadjri noonu mm-hmm. gazé nañ leen ba ngeen di bëgg a dee mm-hmm. te ñi koy def nag nañu xam ne dañ leen di defloo seen liggéey waaye nit ñi ci seen droit lañ nekk ndax xam nga ne depuis dimanche passé élection yi tàmbali nañ candidat yëpp am nañu sañ-sañu génn jamono ju leen neexee dem fu leen neex def seen campagne électorale soxlawuñu dégg nga autorisation qui que ce soit. Mhm. bu doon ci jamono judul jamono ji sax soxla autorisation waaye dangay ngay def rek déclaration. Mhm. loolu nag moo tax man damay def ci sama page Facebook bës bu set ma bis ma bind na tey mooy bës nangam ci campagne électorale bi. Mhm. parce que loolu mooy dëgg. léegi nag loolu Haamaan doon defal na mu mel ni moom la wuzaraaw yi muy ministres yi muy yenn personnalités yi di defal njiit yi pour que njiit yi mën a. continuer di yilif nit ñi wala continuer di noot mm-hmm. nit ñi ñeenteel bi pour al malik mustabit mën a am li bugg mooy dafa soxla ay boroomi xam-xam dafa soxla ay njiit dafa soxla ay nitu diine yu mm-hmm. koy rafetalal di ko daganalal su ne nangam dagan na ñu ne ko dagan na kay su ne nangam baaxul ñu ne ko xaraam na mm-hmm. loolu nag booy déglu constitutionnaliste yi nga xam ne ñooy daganal ak di xaramal ngay dégg nitu diine yi naan waaw maa ngi ànd ak président bi ngir dëkk bi am jàmm mhm. àndal ak président bi ngir dëkk bi am jàmm waaye waaye ci njub loolu nag yàlla bi mu ñu koy wax ci xisay firawna mi ñu koy wax ci njabarkat yi dégg nga de bi izzati firawna lañ doon wax mhm. ñun de dañu not ànd ak firawna di ko njabaral ànd ak firawna di ko daganalal ànd ak firawna di ko kaweel ànd ak firawna di ko nàngamal képp kuy borom xam nag xam-xam nag mbaa ngay borom kaddu xam nga ne hmm. yow am nga responsabilité bu rëy rëy hmm. soo mënee wax waxal soo mënee dem ca ka nga xam ne moom mooy njiit ba wax ko lu muy dégg wax ko ndax lii ñuy gis jëmul kër te il faut que président bi jël ay responsabilité am nitu diine yi gis nga église bi génn nañ jël seeni responsabilité imaam yu bëri génn nañ jël seen responsabilité jàpp naa ne ku ñu wax ñu lay déglu rek war ngaa wax ngir jàmm am ci dëkk bi ngir que élection yi fi mu war a jaar mu jaar fa ngir que liberté de presse am juróomeel bi nag te foofu lay mujjee ndax moom lañ soxla fii ci jotaay bi waaye yële yëpp soxla nañ leen tamit mooy ab njiit bu fekkee dafa bëgg noot aw xeetam dafay soxla presse corrompue dafay soxla une presse corrompue nga xam ne lu mu bëgg a def moo ko koy annoncé. Mhm. Mhm. léeg-léeg nga dégg ay yëf ci presse bi te xewagut. Mhm. balaa nga toog rek gis ne mooy xew. loolu nag Walfadjri da cee génnee boppam moo tax problème yi ngeen di am nii yëpp ngeen di ko am moo tax ni an lakum dañ leen di félicité. jamono ji ñu toll su ngeen amuloon problème dañuy tiit ci yéen. dañuy tiit ci yéen gis nga Firawna alxashara wala alxaashiruun ñoom ñoo doon presse ba mu war a dajeek Moussa ak njabarkat yi pour ñu wane luñ mën ak kanaw nekk ci dëgg mhm. waxuñ ne nañ dem xooli li Moussa di def ak njabarkat yi dañ ne nañ dem na tabiu saxaarata kaay leen xoolaan dégg nga ponkali firawna yi ndax ñoom ñooy not mhm. bu ko defee li gouvernement bi di bëgg ngay wax lim bañ doo ko wax waaye lii dëgg moom in yasmaul xayra in yasmaul xayra yuxfuhu wa in samiu charran adaau wa in lam yasmaau kadabu suñ déggee yiw dugal ci taatu rondal bi ci suufu ron bi bi suñ la xamalee tuuti ay étalé ko muñ la xamalul sosal la loolu mooy li nga xam ne moom moo xew yéen nag alhamdulilah mucc ngeen ci bari nañ ci ñun ñoo xam ne nekkuñ ci réew mi waaye dara umput ñu à travers à de yéen li ngeen di def kon nag ñu ngi leen di massaw waaye di leen jaajëfal te di leen xamal ne yi incha allahu taala wal fajri saa yu ñu ko songee dafay wane ne rek dafay ami doole mhm. benn nitu yàlla wala benn wax kat dafay wax ne al islaamu mhm. ida hujima dégg nga shtad mhm. ida xuriba shtad wa ida turika wa ida turika stamad wala waaw suñ ko xaree mu ne am doole ko bàyyee nag wa ida wa ida turikam tadd suñ ko bàyyee mu yaatul boppam peuple peuple bi yëpp lañ xaare dafay am doole suñ ko bàyyee mu yaatu mhm. kon nag oustaz ci euh, sama tur ci turu mhm. dégg nga ñi nga sa bitim réew yëpp mhm. ñu ngi leen di masaw gis naa président Cheikh sànq ci kaw xam naa ne dinañ ko gisaat après waaye oustaz nga xam ne moom li Serigne Cheikh daan wax ci alkande ja sax ñun la woon <laughs> boobu rajo bi rajo rek la woon mm-hmm. dégg nga ñu fiy ñëw di fi fekk Sidi di fi fekk oustaz di fi mm-hmm. fekk jëmm yu tedd yi mm-hmm. di ñaan yàlla dëgëral leen yàlla taxaw leen di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal waaw ah, yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yal na yàlla def njub ci Sénégal yal na yàlla def justice ci Sénégal yal na yàlla laal xolu Macky Sall ak dënnam ba mu nangu dëgg nangu bàyyi élection yi ñu jàll ni mu war a jàlle Sénégalais yi fal ki nga xam ne moom lañ bëgg te foofu laay jeexalee xam nga dañuy wax oustaz ne eh, la souveraineté bi mm-hmm. tey mm-hmm. dañuy wax la souveraineté appartient au peuple mm-hmm. xam nga loolu du dëgg gis nga ñun peuple bi ñaari ñaari minutes souveraineté lañ am mooy bi ñu dugg ci mbañ gàcc gi di voté loolu rekk kat lañ am loolu rek lañ am ñaari minutes yooyu ci nga yëg ne yow yow yaa yore souveraineté. yaay mm-hmm. fal mm-hmm. Mm-hmm. bu yooyee jeexee nag dénk nga ko kenn koo xam ne xamoo lu mu ciy def. ngel la ñaari minutes yooyu buñ ñu ko xañ. buñ ñu ko xañ asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf imaam Mountakha Sakho ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw sa Assane. Euh, jërëjëf euh, imaam Mouhamed euh, kàddu yi am na solo ni mu ko portalee itam. Uh-huh. te mu am cëslaay lu am am solo la yow itam ni nga ñuy masoo noonu la lañ lay masawoo ndax sa diggante Walfajri démb la woon lu jiitu tey euh, boo nekk ci bitim réew itam yaa ngi bàyyi xel wal faj euh, Walfajri di ko topp waaye itam euh, di indi léeg-léeg sax ay contenu yoo xam ne dañ koy soxla fii ñu lay sant bu baax a baax di lay gërëm kon Mouhamad mm-hmm. Euh, sa beneen turandoo di Mouhamed al Muntaqa euh, ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko di ko di ko di ko di ko gërëm ndax euh, lu mu xat-xat nee na daal day foog mu jaar fii massawu personnel bi waaye bi mu ñëwee itam dafa fekk ñun ñoo koy massawu dëgg la jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy gërëm di ko sant di la gërëm yow itam sa Assane Diouf kon mbokk yi ñu wéy ndeg yéen rek ci édition spéciale bi jamono ji ñu ngi jéem a